fekkee ndox laa neex nga bàyyi ko def wala naa la jàpp jëlee ko léegi xaaj di ko ca xeer.
bu ñaaree ci maanaam su fekkee yàlla dafa dogal doom bu soog doom jooju te mu si biir biir ndax doom jooju dagan na mu sant am doog a dogal
loolu feeg rëbboo amul ñeenti seede yi amul rek doom bi te te te bu mu xëy gi am na doom bi day yéeg ci bàyyi. doom bi li koy fekkee ndox laa neex nga bàyyi ko def wala naa la jàpp jëlee ko léegi xaaj di ko ca xeer.
bu ñaaree ci maanaam su fekkee yàlla dafa dogal doom bu soog doom jooju te mu si biir biir ndax doom jooju dagan na mu sant am doog a dogal
loolu feeg rëbboo amul ñeenti seede yi amul rek doom bi te te te bu mu xëy gi am na doom bi day yéeg ci bàyyi. doom bi li koy yéeg ci bàyyi ñu rëbboo bu ñu rëbboo doom bi lay yéeg lay yéeg te du ci rëbboo ba ba daa bu fekkee ne rëbboo amul waaye arbaa shahadaat yi seede na ko doom bi di yéeg lenn muddat aqsal xam ne dafa am muddat aqsal fekkee ne ci latitude boobu génn na ko yoon yéegal ko ci yéen soxna si kenn joxagu leen xarafagu leen li wala fi wax xarafagu leen waaw waaw waaw kooku moom lu leer wax moom xalaat waaye dama la bëggoon détaillé rek wala xaraf nañu waaye ak bi ci mu dëkk bi bi ñu ko indee ak bi mu wasinee matul aqsal alhamd mu dëkk aqsal alhamd ba tey du yéeg ñu dem ba mu weer mu dëkk aqsal alhamd ba tey du yéeg lan mooy aqsal alhamd est-ce que yàlla may dégg dégg na may fekkee nag ci diggante boobu la moom génnul aqsal alhamd ak ak ak aqsal alhamd rëbboo rek wala ñeent seede wala iqraar yi xamul mukalaf bi iqraar yi ñett ñi dong ko mën a see yéeg téere yi dem nañu ba ne mu def aqsal xam ni ñett ñaari juróom te demuñu ba sa médecine ndax nit day changé jamono yi nit climat yi ak yooyu yëpp lay ay changement fii demuñu ba ay médecin médecine ci boppam taxaw dàq ko soxal ko léegi adduna ci ci loolu la ñuy jàpp ak saram ni juróomi at fekkente ne nit ki jógee ne fi bàyyi soxna bu am juróomi at amul yenn preuve dañu la dàq te man maa ngi xaw ma ñaata at la ñu am na ko ci biiru yaayam naa yam na fi yoo xam ne biir boo xam ne boo ko fi amee da ngay saxaale bëj dañu booy bëj lay sax li nga wax sëriñ ah yàlla dafay bari ñu ko ñu koy jàng ñu romb ni waaye dafay mokk de détails yooyu yëpp lay ndax kooku loolu daf ko létti lii itam nag li mu tentoon waaye nag xamoon naa ne daal ma sax jamono mën na ko laaj li mu bëgg.
ñu ko koom um na ci borom soxla si moom la loolu métti ah waaye nag ndax moom li ko ci gën a métti sax mooy doom yi nga xam ne yëgal nañu ko moom mooy mooy tiit ndax sant woo ko loolu ak ci yoonu ñëw ci bu dee mu ngi ko nar a doon baa bi ci am ba ala mu ngi ca am bakkaar jural li sharia dàq kenn mu ko dàq yonent bi France ba dafa ne umirtu an uqaatila annaas xata yaqulu la ilaha illa allah fa ida qaaluha asamu minni dimaahum wa amwaalahum wa aaraadahum wa xisaabahum ala allah foofu dañu wane ne sharia ak xaqiqa am na sallallahu alayhi wa sallam dafa ne li ngeen ragal yàlla te njëkk ñaar day ñëw xëccoo dara ci man kenn ci gën a mën a laaj yi morom bi ba ma yëkkati ko jox waaye fu ma ci fekk moomu ko waaye fu ma ci jox loolu safara laa fekk jox la nga xam ne kon wóor na ne sharia ni ko yàlla salaa sama atte la sharia atte ndax mi ngi dëgg ci ay sart yu mat yu wóor te la ca sart xanaa nga xam ne ci biir la suñu borom sant ko jaam ñi nañ ko liggéey ko sant ko bi yeneen sant ko liggéey meneen ne na ko liggéey diggante ma boromam la mooy xaqiqa mooy kii wóor na ko ne moom moomal li ñu ko jox dara fi mu nekk ci man fàttali naa ko dara fi mu nekk daal di jàpp suñ laan suñ jigéen sax moom moo waxoon ne su fekkee suñ ko wax dañ mooy mooy boobu bu ñu boole bu ko benn bu ko defee dem ñu si bañ a ko jàmm ndax xam dara moom.
قول وقت النيمان مد من السماء يؤتي من يؤجل كالمود هو يصور عليه أن يلنا لجميع صلاة الغدير ومضينا
لنا نصيبا ويزنا
لا اله الا الله ايوه محمد رسول الله عليه صلوات لله يا رسول الله وأذن يا إيمان قد صاب الإسلام والإفساد جرم كبير فاروق يوجد جديد الإخلاص والتوبيخ والمدون يدنو محمد رسول الله أجرنا عثمان وسنوري وبأجل الولد الشقي عبدي في دنيا مال خراج والنور والقيوم والمسايا جوينا جنت الموت محمد رسول الله ما كان لا اله الا الله اذا قبل الله ما في تقوى هم الذي في تدبير الشرير والنجمة لا يا رسول الله أعلم سألتك بخبلتي منك أنسلت وبالمرسلين مجدين من البلوى يا رسول الله آتيك من العلماء عاملين بإلمهم وبالأولياء السالمين من الدخواء أجل بالبيت والمساء والبيت يا رسول الله أمر بالبيت الله ويلا بعد وبالبيت والمساء وسمسم والسبا وبالأرمين الظالمين من الأسرار وجولين ينشر محمد محمد رسول الله أهلا وسهلا بالملكين كاتبين العادلين أشهد أن يا ملائكة الليل والنير إني قلت بالحياة قبل الممات وجولنا ينتظم محمد محمد رسول الله وعبد الله رسول الله الدنيا لا اله الا الله رب الكريم كان محمد لا اله الا الله آية التي تسمى النسيان ومضيات النسيان ومضيات حق الليل ومضيات جميع الشرك ومضيات جميع الجهات ومن اتباع مكمل في اوسره ومن خلق ما خلقناه ومن ما خلقناه محمد والبلاء مخطوه محمد والمخطوه في زمن محمد والأحكم له محمد والقصيد الخير محمد والقوت من الخير محمد آمن من رسول الله أنا نايمون تجد بين السماء ومروة استسرى جبريل فقال يا رسول الله يلا كنان اقرأ اقرأ باسم الله بارك الله جميل جوينا ينشر محمد محمد رسول الله أنا مأمون أيدي في بين سرى ومروى يقتلنا سرى جبريل جوينا ينتظم مجد محمد رسول الله وعبد الله رسول الله يا من يرجى المسيج وأبوك بي الذي قد يا رسول الله وبسيد الفاروق أسدي بأن قدم صلاة وتهيما على خبر رسول الله وخبر أبو بكر وخبر أبو الأخ جوينا ينتلم مدو محمد رسول الله أنا دائم ونطل ثلاثة من رسولي تبارك ربنا آمنا بعطاه وديننا جوينا ينتظمون محمد رسول الله تجريد من جميع الشعب محمد رسول الله سيهم المرمى رامته مولي إلى يبي الله هو بيد من سجيبة الكلام يراج إليه يسلم من محمد رسول الله أنا مؤمن أنا بجد سلام من ليس ساجد فحال يا رسول الله يرجو إليه يسلم منه محمد رسول الله قدر يا وجاه بمن يشاء منزلا ولا تقدر عن غرفه متأولا فاضرب به من لم تعرف منزلا ايد الى ينتظم منه محمد رسول الله الحمد لله يا سعد عارف المظلوم بلا سعد يا سعيد بين وبينات من الوجه الكبير وسؤال الى ينسلم منه هم رسول الله أنا لهم لقلت لما يجب يا رسول الله إلى ينسلم منه لا إله إلا الله هم رسول الله الحمد لله يا سعد هذا مقصودي بلا سعد يا سعيدي بين وبيناني من المشركين وسؤال جرما يمتلم منه لا اله الا الله هم رسول الله وسبرات الموت من رأيك الخيال ما لا إله سياد سنه ومس على منكير ومكير جوابه إن لا تنكير أوعى من وجد له لا إله إلا الله ومن رسول الله كلا الموت باب وكل ما يجد داخله لا لا تسير بدل الموت ما دار جواهي ممدون أجلو محمد رسول الله الدار دار من يسكن من سلما يلما جساو يندر سمنا رجواهي ممدون أجلو محمد رسول الله ومامنا لا من مال غيرهما فاستهزئ لنفسك أن تعرف تختار شيئا من مدون أدنو هم بالرسل والنار فلما تلخت إرادة الله تعالى بدل بتكوين كائنات كلية وارسم لنا ما فيها كسر الهدم وصلاتي وعلم مدون أجره لا إله إلا الله محمد رسول الله وبموت رسول الله الانتباه الذي في الدعوة إلهي سرعة عند الإيمان خطاب الإسلام والإسلام وإنها يتكلمون محمد رسول الله بعمة صديق الضار تدري بالغال والتوفيق يطوس معنا في النور وبالعلي والذي سبتين جوينا ينتظم منه ومن رسول الله قبل في الدنيا مال والرعاية والنور والعلوم والمسائل يخلق الله الذي الآتي عن والدي مسجد العلم جوينا ينتظم منه هم الوصول أنا مهمولا أجد البين الزباب ومروة هم عيد الراجلين فهذا يا رسول الله أنت سلام وجوينها ينتظمون هم رسول الله فكم سيدي لا منوت بسيد وأقوم به بذكر يا رسول الله وليس بالبارو عزيزي أنخدت صلاة مدنيما على خبر رسول الله وعلى منوج له لا إله إلا الله محمد رسول الله أضر أبو بكر وحبر أبو الأخ فيا ربنا بعظيم السماء علينا على تهيب الله بسواء جوينا ينسل ممد ممد وسلالاي أهل المكان الثاني لا يجلوا ممد وسلالاي جوينا ينسل ممد ممد وسلالاي وبيأمر بهم عبد الله سمي بدن منامة الناس سليمان إني خيدني وكيد المكل يا معين جوينا ينتن ممد ممد وصل الله عارف لك جميل عبد الله بن بلال شفيع الله نبي الله كريم الله بالميلا جوينا ينتن ممد هم الرسول علماء تنغد من الله تعالى جدا بتكوين كائنات كلية وسمية وعبادية بأجل في العالمين وصالة وعرف في المقام خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم شوائد بعد انواع شاج الخبز فذهب بالخدرة ودخل خلائم فجاءت زمان كل العام كما خلق يا الذي مجن والكحول والليل والخلو والملائكة له الهادي سلام مدوج له لا اله الا الله هم رسول الله تبارك ربنا عمل جمعي قال إلينا رمت من كما أجرنا ينسلمون محمد رسول الله نعم بالمن وأكمل الورع
jërëjëf ok jërëjëf.
ok yal na yàlla fay.
jërëjëf bismillah bismillah
Serigne Cheikh.
waaw waaw kay man la Ibrahima Ndiaye.
ah jërëjëf eh, Xombal.
naka waay Pape Ombal waaw Guèye jërëjëf ñu ngi Guèye Guèye lay jaajëf.
Guèye. ah tey di dara si tey daal tey daal moom dëgg dëgg dëgg moom lu may wan daal dara si tey bi amul morom jërëjëf Ndiaye.
ndax bunt bii nga dal tey bunt la boo xam ne dañ bi ñu bari doon nañ ko eh, teer Mhm.
waaw ba waaye daal Mhm.
jaaral nga na ko foo xam ne daal waaw jàll na la yàlla fay jërëjëf te man daal déglu naa bu baax a baax a baax jërëjëf xaw ma nag ñi ci des lu ñu dégg waaye man daal Mhm.
wax dëgg yàlla sama ko seet na lool jërëjëf Ndiaye.
mbooleem fi nga ko jaar daal eh, yaakaar naa ne képp ko xam ne ci tasawuf dugg na la Mhm.
tey ji am nga mbégte lool Mhm.
ñi nga xam ne ñii nag yaakaar naa ne dañ daan jam tasawuf Mhm.
defe naa ne bu ñu dégloo eh, bindu tey bi Mhm.
bu fekkee ne ay jàmkat lañu day Mhm.
fu ñuy jëlee lu ñu jiñal li nga wax Mhm.
dana leen jaaxal Mhm.
te te bindu tey bi daal waaw benn baat rek la moom te boobu da nga ko da ngaa jàll firi nga ko sax waaw bi fi ñuy waxee ne wa baadahum yaqdaxu fihi jahra yufdi li kutbil qara wa zifra waaw waaw zifra boobu waaw eh, ndaw nga wax waaw njaw waaw ndaw nag man moom laa xamul lan la njaw nag maanaam gileem a koy am waaye moo di ak dox rek ci nit Ah.
waaw maanaam dox gileem ah moom la ñuy wax zifra ah maanaam nit koo xam ne nii daf laa woon ginnaaw boo dee Ah.
wax mu daal lay won ndong waaw loolu moom lañ ci jublu nga xam ne mooy wane ne yëguma li ngay wax bëgguma ko bëgguma koo dégg ah kon ñi nga xam ne dañuy jam tasawuf daal waaw dañu koo def noonu daal dañ ko wane ginnaaw ñu njawal gëleem eh, ginnaawoo gëleem daal nga xam ne nii la la ci sa naawale boo tasawuf demee ci pays bu demee ni ci Arabie Saoudi nga xam ne waxaa bi di ñoo ko dëkk waaw tey bañ tasawuf Ah.
maanaam dañ lay dàq sax pour téeréb tasawuf rek dugg ko ah waaw ah.
dañ la ne bul fa nekk waaye ak liñ ko ñàkk a liir yëpp nag Waaw.
loolu borom xam-xam yaa ngi ciy bind xaw ma nag fu ñuy jëlee kon dañuy bind
ok jërëjëf Guèye ok jërëjëf jërëjëf waay waaw allo ak bismillah allo waaw waaw sëñ Cheikh waaw man sa doomu nijaay Alaaji Asan Badiane jërëjëf ci Thiès waaw ko jàpp ñëwoon nga seet si ma ci marché bi waaw kay ci boutique ba waaw fekkuloo ma fa Mhm.
nga fekk fa sama xale bi waaw nga joxoon ko nag euh, numéro téléphone rajo bi ak sa kër waaye yàlla dogal na ma denc ko nag mu réer ma moo tax booba de woowuma la ba léegi nag ma déglu sa waxtaan ma ne naa la woo euh, ndokkeel la ci di la gërëm allo waaw ma ne man di la ndokkeel di la gërëm Jërëjëf.
ci waxtaan wi jërëjëf waaw rafetlu nañ ko trop Jazakumullah kontaan nañ ci itam jërëjëf waaw waaw xam naa nag du ñàkk bés Mhm.
ma woo la kër ga daal incha allah waaw waaw euh, numéro kër ga waaw dinaa la ko jox bu ma bu ma wàccee rek waaw xam naa sa numéro dinaa la woo waaw baax na naa jox la ko incha allah bi bu kër gi de waaw waaw kër gi vingt sept kii la vingt sept kii cinquante et un Mhm.
vingt sept quatre vingt dix sept waaw baax na jërëjëf bismillah allo Mhm.
allo allo asalaamaaleykum aleykum salaam liñ ter waaw Guèye waay man la saxee cam ah Thiam waay Guèye waay watawatoo maa ngi sant bu baax alhamdulilah ñoo ngi lay ndokkeel jërëjëf di la gërëm Mhm.
bu baax jërëjëf Thiam yàgg nañ la bëgg a jot trop waaw waaye émission tey bi moom Mhm.
ah wax dëgg yàlla Mhm.
kontaan nañ ci lool jërëjëf Thiam jullit ñëpp di kontaan tam jërëjëf tasawuf bi nga leeral daal Mhm.
moom ah di àdduna bi kontaan ne jërëjëf ndax nan nga sant yi moom nit ñi sa ñëpp xam ne ñoo ngi sant Mhm.
waaw waaw ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax jërëjëf te xam ne itam kontaan nañu lool waaw waaw.
man nag damay daal di bàyyi noonu ndax nit ñi xam naa ne waaw.
ah bëgg nañoo téléphoné jërëjëf Thiam jërëjëf jazakumullah xeer bismillah
allo allo waaw Guèye waaw sëñ Cheikh waaw na salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi may man la Assane Ndour waaw Ndour dafa am lu ma bëggoon a laaj waaw Eh, julli fajar bu fekkee dafa la raw julli fajar waaw bu fekkee dafa la raw waaw
léegi nga nga xëy ci suba bi bëgg a julli ndax ñaari rakkay fajar yi da nga koy fay
waaw euh, maanaam jullik fajar waaw moo di ñaari rakk fajar yooyu waaw jullik suba mooy farata ji waaw bu fekkee jullik suba moo la moo la raw waaw julli fa bu fekkee fajar bi raw na la maanaam jant bi fenk waaw waaw nga bëgg nga xëy bëgg julli suba waaw ndax ñaari rakkay fajar yi dañ ko ci boole da nga ko ciy boole wal Euh, waaw ñaari rakk fajar yi waaw euh, bu fekkee ni jant bi day door a génn di xong waaw kenn du ko julli foofu waaw waaye nag da nga julli suba moom waaw bu fekkee julli nga suba ba noppi waaw bàyyil jant bi ba mu dox lu tolloog ab gopp waaw ci sa bët ne moom na mu dox moom ëpp na loolu waaw waaye li ngay séen war naa tolloog 3 mètres ci sa xalaat waaw bu boobaa nga julli ñaari rakk fajar yooyu waaw bu fekkee génnagul nag bu fekkee jant bi génnagul nag waaw bu jant bi génnagul nag waaw da ngay seet ba xam diggante fii ak jant bi génn waaw euh, xaj na fi moog subaam déet waaw bu ñu fi xajee ñoom ñaar waaw nga julli leen waaw bu fekkee xajuñu fi nag nga waaw.
julli suba bàyyi ko waaw mais ñaar rakk yooyu rek dañu war a julli ci suba bi waaw ñaar rakk yooyu rek mooy ji yi ñuy julli ci biir fajar bu fajar Waaw.
xajee fekk waaw waaw jërëjëf jërëjëf
aw bismillah waaw Cheikh Gueye waaw Cheikh Lo ah na nga def waay loolu sa liggéey waaw tawatu ñu ngi lay ziar bismillah jërëjëf waay ji jàngal mu leer bi jazakumullah khair ñu ñaan suñu borom nangu jaamu yàlla yi amin ak leeral yi di day tey bu ñu jëf jërëjëf kontaan nañu baax a baax daal jazakumullah khair maa ngi doon laaj euh, ñaari laaj yi sama jege Mhm.
benn aaya bu suñu borom jox wa man lam yax suñu am sa laaj wala yusuf kaasiro la Mhm.
wala ko fàcce wala ko fàcce wala Mhm.
moom ban àtte la Mhm.
ci def sa akam say naa daan sax moo jël xàtte bi Mhm.
ma si doon laajal ba xam Mhm.
ak ndax àtte boobu àtte suñu lii ni àtte boobu suñu réew mi Mhm.
parce que damay suñu réew mi Mhm.
kenn koo xam ne dafay am problème daal Mhm.
maanaam dafay tooñ ñu wër dañu tooñ la Mhm.
dañ ci am loo xam ne kon vraiment tooñ Mhm.
parce que juróom dañ koy gën parce que dina dagan mu ko layal ko mu am dëgg Mhm.
ba yooyu ci mu tooñ ñu ko jëpp ak itam aaya boobu Mhm.
lan la suñu borom waxtaan laa doon laaj xam daal waaw li ci sunu borom wax moom àggale na ko ndax su nee na alfasixoon benn bi muy salimoon benn bi muy kaafiroon ku atte woowul foofu waaw ku fi atte woowul ku nekk ak atte wu ni attekat bi rek la ñuy njoy waaw moom kay Euh, ndax jamono boo xamante ni atte ñëw na ñaar a ko seet kii atte kii atte wu waaye ki xam ni fii ñuy atte woo itam du atte dëgg nga ne ñi ma faa yóbbu sa ah bu boobaa day wane ni yow itam nangu nga reconnaître nga dëgg googu Looloo tax may laaj.
nar nar woowu da nga koo da nga koo nangu looloo tax bu lu may boobaa laaj loola loola jaaduwul julit bi bu mënee muñ atte woo ci alquran bu fekkee li mu wax dëgg la euh, dañ koy yóbbu ci police waaye du ko yóbbu yóbbu gi nag mënoo ci dara ndax dañ laa not tribunal dañ laa not yóbbul fa waaye yow di nga fexe ba yow doo fa yóbbu kenn ndax gëmoo ni atte boobu ci dëgg la nekk comme gëmoo ni ci dëgg la nekk doo ci atte wu loolu mooy nangoo nang ko atte wu du caagi nag bala ngaa atte wu ci alquran da ngaa fexe ba am gouvernement islamique waaye jëmm ju nekk mën naa fexe ba nekk gouvernement boppam bu islamique bu ngeen matalee julit yëpp mu daal di doon gouvernement bu formé boppam te kenn du ko atte
ci ci def nag itam waaw boobu ma la wax mooy itam day rek a tax ñu jël xam bi waaw yëpp jamono yi jamono boo xam ne yaa ngi atte euh, yàlla da daa digal nga atte ci maandu mooy li jafe léeg-léeg nit ñi ma gis ni euh, danañuy kër kër yi lool ci sonn ci woote nit ñi dellu ci Qur'an euh, waaye la benn waay waxoon ne waaw bu nu wootee ba pare nag kan moo ñuy jiite loolu yi mu lu jar a laaj la ndax wootekat bi ci saate moom di nga ko gis mu jeng ci ñi mu faral lool nga gis ni kii de moom bis bu mooman doole boo sàggantu nga dee euh, kooku xam nga ni kon mënta atte ci adlu adlu euh, bu ñu ko waxee mooy koo xam ni dafay joggi ci kaw loram ngir saxal dëgg loolu mooy adul Euh, nga xam ne lu mu metti metti bu maandu te di kii duñ ko wax gis nga imaamu ali yéen karamallahu wajhahu euh, dafa doon koo xam ne ni ku maandu la ku ñimeeg dëgg la Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala da ko doon atte ak benn yahud ci benn jafe buñ jote moom tey naa lii moom Seydina Aliyu bi Seydina Aliyu ak see ci jitaayu attewukaay bi Omar tey gu mu tey Aliyu ak màggal gu mu ko màggal daf koo jox benn sees pour mu toog moom Omar moom Omar jox Aliou benn seet benn sees pour mu toog ngir màggal ko daal ngir màggal ko ndax moom saxaaba la te seetu maanaam mbokkum yonent bi la sallallahu alayhi wasallam Euh, yahud bi mu amanteel ñëw taxaw Ali ni ko waaw sama xas mu bi nag kii may xulool moom fu muy toog Euh, bi mu ko laajee fu muy toog mu ni ko ah, xam naa dama la jox yitte rek moo tax mu ni ko maa ngi moom noo bokk yamukaay ginnaaw indi nañ ma tribunal waaw xam nga kon maandu mi ngi yem ci atte sa bopp ak jox sa bopp euh, jox ki ngay ki ngay atte woonteel nga di ko joxum dëgg loolu mooy maandu te ki nga xam ne nii bu ngeen taxawee ci kanamu tribunal ni muy seetalee boppam aw lay noonu la la koy seetalee yow ci sa bopp loolu moo di ak dëgg Cheikh Amadou Bamba mas naa am ak jote boo xam ne nii ay taalibeem jote nañ ko waaye la mu dénkan gaayam mooy bu ngeen demee far leen ak dëgg waaye bu leen far ak seen bopp loolu yi nag mooy maandu maandu ko googu la mooy mën a daj jamono loolu it mooy xeet li doomu aadama yëgulee ne doomu aadama yàlla daal bind àddina ngir mu dund ci jàmm dundam ci jàmm nag maandu képp a ko man waaye lu dul maandu te mënta tax nit ñee dund ci jàmm boo baree doole mun la indi jàmm ci doole mun la indi jàmm ci lenn maandu képp moo mën a indi jàmm waaye lu dul maandu te ay wu gën a rëy lay indi yal nañu yàlla musal ci ñàkk a maandu jërëjëf jërëjëf Fane Ndeye Diagne leeral si leer na jërëjëf.
fikahu ci ragal gi nga ko ragaloon kullu ahad képp kenn saa boo ragalee yàlla keneen kudul yàlla ragal la keneen kudul yàlla dana la ragal kon ndekete fexe nit ñi ragal la jërul sonn fexeel rek ba ragal yàlla mbiri bind boo ko ragalee mën nañu indi jiw waaye waaye jiw wax lañu leen jiw bu noppee xam nga ñoom asama la ñuy doon mooy fa mën a aw ñu kasata niyaat yi su ma kaanu xaqa min hum bi dalika mu ne nag illa an yakuna ma al jaddi waxtun shaqiqatun waxtu shaqiqa boobu wala ha axun li abin aw waxtun wala mu am axun wa waxtun ñoom ñaar ñëpp li abin léegi xam nga chaque bi moom. waaw waaye saqas bu góor bi la wax xam nga ila saqas bi ba tey la kon la wax saqas bu jigéen bi ba tey dafa ànd ak beneen mbokk boo xam ne akul li aduna est ce que akul li aduna saqas mën na ko dàq dana ko jur
kon akul yëpp du ko dàq dafay dàq ba sax bopp
akul li aduna ak saqas ما يستحقي هذا الذي يخل على الشق خلي يحكي لك السليم يصبح بودي نيار بودي نيار شو بيصير لهم يدرني بودي بودي نيار يستحقي بيصير شو بيصير لهم يدرني لا بيجي بيجي يخل على jigéen bi doon mukk ba mu jeex léegi bu fekkee dafa ne ilaa nekkoon ma al jaddi uxtun shaqiqatun wala ha axun li abi léegi maam bi fekk na fi shaqiqa ku dee ki dee ak axun li abi ki dee aw axun li abi aw axun yëpp benn la wala axun li abi yëpp bala fa taaxudu nisbaha kuy jël nit bi maam taaxudu chaque mooy jël misif gannaaw kenn nag bu doon ñaar ñi fi seen li ñuy jël léegi bu doon nee misif moo ne fa taaxul fa sama kee taaxul ida bi nisbaha mi maa xamee ci la ne wutu salli mu mu jébbal moom kan mu chaque fi ba tey waaw maa bàq yooyu léegi waaw léegi nag waaw léegi nag maama fi nekk ak oxtun li abin axun li abin ñu ñuy def ku ma est ce que ñooñu am na ku mën a yéem moromam xam nga miraas bu way doon yi dajee da ngay seet ku fi yiir ak kuñ fi yiir bu yiir amul boroomi ceeb rek a fa daje ndax kuy doon asaba nekk fi moo tax kenn yiiru kenn wala kii doon asaba am ku mu tollool daraja ci lu dee te kooka jigéen koy dañuy daal di jeexal daal di jigéen ñaari jigéen daal miraas moom masa gëstu boo ci da nga koy jàng jàng jàng te pose beaucoup de questions mooy tax nga mën a miraas léegi maama fi nekkoon supposons léegi boo bu mu naan utal ma bàqee léegi léegi maama fi nekk ak mbokk mu waaw léegi ñooñu nañuy séddoo
maam bi du leen du leen yiir
kay du leen yiir
waaw day gis si si si
waaw moom moom am na sudis ci cër waaw ñu ci def kan ak kan la kooku mu bëri mu di yem taxul li abin boo xam ñoom ñaar nañuy séddoo loolu benn jigéen ñaar ko jeex mu ne nag walaa yu baax bu julit boobu nag mu ne walaa yu baax teeful dolli am na baat wax bu ñu ko waxee de walaa yu baax lil axawaat ma al jaddi mu ne walaa yurba déebul maanaam daal defal awlu maanaam daal yokkal mosal lil axawaat ay mbokk yu jigéen ma al jaddi bu ñu àndeeg maam illa fil xarraa yi xarraa jàngoon nañ ko xam ne ko mil jàngoon nañ mil jàngoon nañ أتيتك بالغراء فاعلم بأنها ستخلق بعد أربع بعد إثنين تجمع فدل من اسم وليك فدل ثمانية بالجد ولي فدل ثمانية بالجد الأخت أربعة
mungkin sama kayak punya juga
Kamu juga bisa beli kan? Jadi kau betul sih. Bisa tak terap ada dua kan? Jadi dia susah betul dari dua waktu dari kita sakit ini sehat lima tahun. Jika lima tahun kemana kan tahu dari perempuan. Kepada anda, kepada kita, kita سلم ما بقي من التركة إليه أي إلى من ذكرت من جد وأخ لأب أو أخت لأب أو هما لأب لا يباع لا يفرض للأخوات مع الجد شيء خمس mooy ndax ndax nekku ca ay ay waxtu rek la illa fi masalati maaruf bi inda al fawdiyina bil akdariya bi akdariya dañ ko wax akdariya dañ ko wax xarraa mooy xar raw moo tax ma ni sama kay parce ci laa jóg léegi mu sonaloon ma lool
foofu nag fa innahu yufradu fi ahadi al axawaat ma al jad
ndax ba gën a ko ab incha allah àgg ci sama xel moom dafa bàyyi kon noonu jàngagu leen ko wala wax am ngeen ko waxoon jàng nañ ko rek tuddoon nañ ko jàng nañ ko sax de ndax njëkkat ji la bàyyi ndey ji maam ji ak circonsanguin bi moom mooy ki mu bokkal bàyyi ki njëloon li kan li njëkkat ji waaw tax yaa na ñëw lu tax mu jël nit doom nekku fi waaw
ndey ji daal di jël moom suluf sulus waaw lu tax mu jël sulus ndo- doom nekku fi
est-ce que mbay doom rek ko mën a tax mu jóge ci sulus jëm sulus wala amul keneen koo xam ne bu fi teewee mu jël sulus
baay baayu waaj
ñaari mbokk ñaari mbokk waaw ñaari mbokk ñaari mbokk bëri ko moom la ñu mujj a jàng sax bëri daa ngeen ngeen di du ngeen di du ngeen mokkal da ngeen di bañ a mo- mirax de mokkal la la la ñaari suñu nekkee waaw tàmbali waatal dana ndey dafa bàyyi borom kër bu góor waaw ak ndeyam bàyyi maam bàyyi mbokkam mu jigéen mu mbokkal bàyyi waaw
kon euh, ñoom euh, euh, maam ju góor ji moom mooy jël euh, mbokkam mu jigéen ma yóbbu ko arab suñu séddoo alal ji kon moom sixième lay mujjee ndax moom ñu- ñoom ñaar ñooñu suñu nekkee arab wax euh, alal ji sixième a ciy def
gis nga seen ndax ki su jëlee jëkkër su jëlee nif yaay ji jël sulus kon muy trois muy cinq sixième cinq sixième un sixième a ci def kon arab bi cinq sixième la ñuy am un sixième la ñuy am waaw
léegi ñu bàyyi loolu maanaam mu bañ a mat mu mat du leen mat
waaw waaw masala bi day dama ci seen i bopp ay ram wala waaw masala bu demee ci bopp dañuy seet bopp bi li mu bopp bi ni mu dem ci ñoom ñu dóor ko ci cosaanal masala loolu ak jëfale ak jàng bu leen ko wala ñu daal di koy waaw bu delloo ngeen paree ngeen jàng naa ba kàttan waaw su ne léegi pour pour delloo delloo masala mi dam na boobu ñu defaraat ko waaw ñu jox ñu jox ba tey jë- jëkkër ji euh, nif muy trois sixième noo def ba agsi foofu yow bi nga waxee dem nga ba nga xam ne masala mi dafa damm maanaam li ci des waruñu woon a am ah léegi nan nga def ba ñu mën a am
ba ñaar ñi mën a am waaw
Euh, ñaar ñoom sudus bi la ñu waroon jël ndax ñoom ñaar ñooy asal waaw bi ñu waroon jël euh, li def ci alal ji dangay kar kar kar fi daje Euh, donc, euh, maam ji ak mbokk mu jigéen mi nga xam ne bàyyi la ci bokk waaw
kooku kii moo ko maam ji maam ji góor ji moo ko xëcc ci dugal ko ci asal bi moo xëcc kañ Euh, mbokk mu mu- moomu bu jigéen ba mu bokkal bàyyi ñu waroon seddu sixième ñu wa- ñu waroon euh, tambaleel jëkkër ji jëkkër ji nisf waaw
yaay ji da nga seet gis nga masala nga seet bopp yi nga seet nag nisba bi bu dee tadaaxul bu dee tabaayul bu dee tawaafuq dégg nga bu dee tamaasi
ci tuddaa fokk la moom waaw kon foofu nag foog nga jaar da nga jëkkër lu muy doon nisif nisif ci lu mën a jógee dana ñaar tomb ñaari tomb ak kan yaay ji yaay lu mu war a doon suluf ci lu mën a génne ñett nga daal di gis ne xaat bu bu yemoon foofu yi léegi suluf maanaam ñaar ak ak ak ñett li ñu def seen nisba lan la rapport ñaar ak ñett
tabaay tabaay tabaay lu wóor ci laamadi bii nan lañ ko war a def jël bii dóor nga du mu wopp nga dóor nga fab kenn ci sëdd ko ci matu meewam muy juróom muy juróom benn waaw deux trois six ak ñeneen ku ci amati cër foofu
cër ci ci cër yi jeex na moom kenn amatu fi cër kenn mu def cër ñu def asal bi dugg kan ak kan a fi ñoo fi nekk di gën maam ji maam ji waaw ak mbokkam jigéen moom waaw maam moom dana remplacer du remplacer bàyyi bàyyi nekkul dana ko remplacé
moo tax loolu tax amul cër
moom loolu xam nga ci suñu dugg àll loolu da nga koo fàtte woon xam nga boo waxul illa bi rek du leer waaw ak kanati gannaaw maam ku fi nekkati bi mbokk mu gudd jigéen bi mbokk mu jigéen mi lu muy am
waxtu waxtu moom moom moom amul dara ndax moom tax na mbaax maanaam di ko asabal moo ko dugal ci miraas
c'est-à-dire du daa amul cër amul cër waaw nga ne nag kon léegi ba mu amul cër maam ji moom moom it amul cër kon ña- ñi ñoo am cër ñaar ñii masala mi kon cosaanal masala mi juróom benn la nga daal di ne kon ki war a doon la misif ñaata lay jël ñaar ci war a doon bi misif mooy ñaata mooy genn wàll mooy ñaata
mooy mooy ñett mooy ñett ñu def si ñett def si ñett waaw ki ci def lu muy doon na ñaar
ñaar ñi mooy lan mooy ñaar yi moom sulus sulus la yor sulus waaw waaw sulus bi mooy ñett mooy ah sulus bi déedéet sulus bi mooy ñaar waaw léegi ñett jóge na fi ak ñaar te juróom benn la woon waaw mu def lan
mu def mu def benn moom lam mu masala naa ko léegi nag ba mu demee nan ngay nan ngay doxale yéen ñi boo tudd ngeen tàmbaliwaat ca bopp ba jàngaat aw subhaana rabbi léegi su demee maam ji maam ji dafa war a kon dugg moom waaw jël sudus la waroon jël mbokkam mu jigéen moomu comme doom nekk fi daal di jël jël jël nisf
moom nisfu lan ñett
nisf jël nisfu
alal alal yi muy ñett muy ñett waaw
léegi su ko defee alal yëpp daal di dugg ci neuf sixième lay def léegi kon léegi kon waxtu boobu day daal di bëgg a fële maanaam dama ne la day doon léegi asaba lay doon day xam ne léegi dootu doon asaba day fab day am cër cër lay dellu maam ji day dellu cër mbokk moom dellu maanaam ji lu muy dellu moom ci lan lay dellu moom sudus moom cër sudus sudus la jël waaw dóoral ba fi def rek dëgëral ba pare ma seet léegi bi nga séddalee mu def sudus ak lan kuy doon lan sudus ak kuy doon kuy nisif doon ak kuy doon nisf sudus ak nisif ba tey lu ñu def ñaar tadaaxul ak juróom benn lu ñu def te daaxul tadaaxul wacul amali bi genn wàll gi ngay jël da ngay jël di bàyyi an tastaxdiya bi aksari aqli muy ñaata juróom benn muy juróom benn nga dellu ca masala mais juróom benn la woon léegi kii mu war a doon
kon ndey moom day jël ci ñaar ñu nit ñi laa wax ñaar minutes waaw kan ak kan lay def maam ji day jël benn
léegi daal benn bi lu mu doon
sudus
Mhm.
mbokk mu jigéen ma jël nisf muy trois sixième
tomb yëpp di ñaata lépp di neuf est ce que yéen a ngi suivre dégg ngeen baax nañ wax est ce que fàtte bi yéen a jàngoon nañ masala bi dellu leen si seet leen yow baax na daal yéen bëri yéen gisagul lu tool ñu bari
jàngagul leen ko ñu bëri ba faar su mun a ci doxaa jóg jàng xarra mooy masala bi nii nu nekk moom la moom ngeen ne jàngoon ngeen ko te niruwu leen ku ko jàngoon
dama ko xool daal ñu gën jël lépp ak duñ kii rek xam ngeen mustaraka moom waaw comme yooyu moom la mustaraka moom leer na
mu faral xam dafa naroon ñàkk ndax ñu bokk ak ñële ndax bàyyi ba ñu daal di sukkandiku bàyyi ba bokk ak ñoom rek ñu leerul
mu def nag mu leerul nag ñu koy leerul woon waaye leer na ma dégg leeral na bopp de ak dara yëpp da ngeen ko fàtte rek waaw dafa xawoon na lëj sax na gis nga ko ci téere bi seet ko ci téere bi ak dara yëpp
est ce que jaawale moom jàngal ngeen ko suñ ko jaar ko jàng li defoon an ko waxoon nañ ko def moom kon xëy na ngeen ko wax
makan illa fi tarilatin fi fajiti wa abin
ah kooku soo gis na am na si soo gis ma baax soo gis ma abooy soo gis ma abooy ak soo gis ma abooy ñaar yëpp ñoo niroo waaye foofu wax sa nekku fi yéen taalibe la taalibe la ak sëñ la bu jàngee ba ba mu yem rek mu daal di fa crayon bi rek daal di tomb foofu rek yow xam ne xam ne ko lañ koy yem boo léegee buñ daan rek xool ba fi mu tomboon mu xam mu xam ne foofu lay mu daal di tàmbali la nga xam ne benn sëñ bi seet ko rek bàyyi ba mu dem ba dem ci téere mu xam téere bi bu seetee lu tal ne li mu war a jàng rek daal di tomb bu téye ba jeex mu ñëw nag di jàng di jàng nag lu ko may taxee ah man yooyu sama daa fi waaw man dama àggale wala ba jeexoon léegi téere moom jeexul waaw waaw waaw dama def nag koy kañ nga lii ba ma koy jàng dama doon gën léegi di bañ a rek ne nii rek mu wax nga waar
masala bi dama ko defoon te fekk ñu ko yàq waaw ba xaral
تمسك بالغراء فاعلم بأنها البعض حزينة له وضع مار يوم العام بطن جديد من جنيان العام sama kala ñuy topp ko léegi amoon nga juróom benn am nga juróom benn muy commencé léegi nan ngay war a defee ba waaye juróom benn bi ak juróom benn lu ñuy wax tamaate juróom benn ngeen ñett ak juróom benn nga am waaw ñu def tam ñu def waaye fi ñu woon foofu foofu parce que ñett ñett ak ñaar ngeen amoon waaw mu nekk tamaa foofu nekk waa ko waaw lu ngeen ko defoon te daaxul ngeen ko defoon waaw loolu bi ñu def na juróom benn ñett ak ñaar lu ngeen ko def lan la ñett ak ñaar tataaxul la tabaayul la tabaayul yi ngeen jëfe ñu ngi jël bi dóor ko ci biir waaw muy ñaata juróom benn waaw muy juróom benn juróom benn nga waaw tegal te rëddal tombal juróom benn tomb léegi kan ak def ci borom cër ñaar yi mooy bo- jëkkër ak yaay yaay li doon na sulu ak kan a fi nekkoon ak kan ak maam maam maam lu muy doon lu mu war a am sukk la yaay
sudus ci juróom benn ba tey day mën a génn ba tey kon wóccu la amal da da da da commencé mu def waxtu ñu bis waxtu waaw lu mu war a doon moom
moom nekk la war a am amul kenn ku ko fi yiir fii
kenn yiiru ko fi mu am nisif nisif day daal di génn ci ñaar mu daal nekk fii tadaaxul tadaaxul lañ koy jëfee jël bi dóor ko ci biir rek ah dóoral àqal kon léegi da nga def nag ñu continuer topp la da nga ne kii day doon na ñaata ñett mooy nisif kii doon na ñaata
kii doon moom it kii doon yaay jeesi nag sudus lay doon lay sudus lay doon moom sulus muy ñaar waaw ñett yi dem na ñaar dem na waaw ki ci def ku ci li muy doon na ci ku fi doon na ci dara maam muy doon na nan sudus fii ñaata la benn sudus benn waaw waaw mu def kan mu def mbokk mi lu muy doon na
nisf lay doon
nisif ci muy jógee ñaar ñaar
masala muy reste entier
moo tax masal bi day day continuer ndax soo ko continuer ko kii ci awlu lañ jëm waaw lu ngay awloo ndax kii su doon su doon nee est-ce que dana jeex dana seet lii dana ko dana jeex léegi bu kenn jëlee ñaar ñett yi kii jël ñaar kii jël lan benn waaw kii ci def lu mu war a jël
ki ci def ñett la war a jël mooy mooy ñett mbokk bi mooy mooy mbokk mu jigéen ñi waaw léegi bu lii jeexee ñett yi ñett yi ñaata la ñett yi mooy ñetti ñett ñi mooy misif waaw nga def ñett nga bal ñett ma ne wàllu séddale bi rek laa wax man waaw lii lépp ñaata la juróom-ñeent
ñu lépp juróom-ñett la ma ngoog waaw nga xam ne masala bi reet xaraaxu moom ak lëg dariye moom sànni nga ko ca àll ba ndax ñaar
ñaar fukk ak ñaar fukk ak juróom-ñett
ndey maam ma maam ci jëm mbokk mi ñeent
noo koy amee fii yow nag nga am
léegi neuf bi moo dafa dafa damm dama ñëw ba fi mu damm ma daal di koy continuer ah lii mooy mooy lan lii moom lu lii moom da koy su ñu dëkkee ba ci neuf bi neuf euh, ñoom juróom-ñeent la dugg juróom-ñeent def ci juróom-benn
ma indi woon juróom-ñeent léegi ma- euh, yaay euh, jëkkër ji su amee ñett Hmm, yaay ji am ñaar hmm, moom ji am benn Hmm.
mbokk mi am ñett mu jox ma juróom-ñeent hmm, su ma joxee juróom-ñeent hmm, kon fokk ñu dugg awlu hmm, ma wàcc hmm.
bi mu wàccee ma jël kii jox ko ñett ci ñett juróom-ñeent yi Hmm?
kii juróom-ñeent yi moom da ci jël ñett waaw
yaay léegi ji juróom-ñeent yi ñett jóge na ci waaw Hmm, léegi ñett bi ma ma baare waaw
yaay ji jël ñaar Hmm. ñaar ñu ngi lu mu doon ya mooy mooy mooy mooy sulus bi wa mooy sulus bi mooy sulus bi waaw sulus bi mooy ñaar fi mu ne waaw sulusu juróom-ñett waaw mooy ñaar
Hmm? trois fois trois neuf neuf
trois fois trois wuy kon ñett ñett la yaay ji kon ñett la jël
da nga koy jëlee bu dee bu ma ngeen bàyyi ko ba ci ma da ngeen ko sànni ci àll jëla ñett da ngay bëgg a tolloo kat bi. yéen ma daan ne xam nga jëkkër ji day jël trois sixième yaay ji jël deux sixième yow nag nii nga defee moom sax moom laa xamul ci ñoom yoonu miraas yi fi dox la.
waaw da ngeen un deuxième mooy nit bi.
muy ni ko waaw te lan la trois sixième.
waaw
waaw da nga dal di dóor dóor da nga dal di ci fac fi mu ne comme fraction bi da nga réduire au même dénominateur.
waaw pour soog a mën a xam ci masala mi lan la ca nangam nangam la cay doon parce que un deuxième ak trois sixième nan ngeen leen di convertir kii dama ko tegoon rek pour xam ne kii moo ko moom mais mu nës na ko dindi ndax fii fii fii la ñu demoon ba nga xam ne suñu dóoree bii ci bii moom moo indi woon nag kii dafay jël ñaar yii daal xëy na da nga koo defoon yow rek pour fàttali ko ba kii trois sixième kii am na loolu waaye amu ci amu ci solo waaw amul solo waaw léegi dindi naa leen ñoom ñaar léegi su ma leen dindee ñoom ñaar kii su nisf la amoon mooy kan mooy jëkkër ji waaw kon nisf juróom benn mooy ñett kii benn la kii sulus la amoon sulus juróom benn mooy ñaar maam ji sudus la am moom alors mi ngi nii sud sudus ñu bàyyi ko sudus mbokkam mbokkam mi moom mi ngi amoon nisf nisf juróom benn mooy ñett kon lépp suñ leen boolee mu indil ma juróom juróom juróom ñeent
te lii nag fraction bi rek seen te moom tudd ci dara moom di juróom benn mooy luy wane awlu lu ñu jëm léegi kon ku nekk ñu delloo la su maam ji su jëkkër ji amee ñett yaay ji am ñaar maam ji am benn mbokk mi am ñett kon léegi mbokk mi day daal di ñii ñoom seen kër génn la moom léegi mbokk mi léegi su bëggee ëppale maam ji ba bëgg ko dugle moom moo jaadootu ñu daal di koy léegi kon li ñu am léegi dañ leen koy séddoo kii maam bi nga xam ne moom na doon perte moom jël ñaar mbokk mi jël benn mooy léegi kon
juróom ñeent ñu ñu bokkoon ñoom ñoom ñaar seen su ñu ko waxee seen kii
léegi kon maam ci day nekk
maanaam lan lay lan lay net lan lay wàññi suñuy wàññi bu toog mooy bu waaye nga xam nga jëkkër soxna si yëpp ñu jàpp moom lan la koy wàññi jëpp moom waaw moom ci ëmb tubaab bi ak lan la koy wàññi ci lan la masalan yaaral ci digg ba rek xaañ ko waaw dafa daal sëcc nga xam ne soxna si yëpp ñu jàpp la maanaam maanaam su mooy yàlla waaw maanaam toogul daal waaw yow jëkkëram da nga am ñeent fukki fan yoo xam ne boo jàmm yàlla du ko nangu waaye kese la kii ko wax maanaam wàññi si la xam nga yow du yàgg la waaye kese la ci weer kooku bu fekkee ne jàppul njàmbur mi tam yow ajuul ci sa sal yow di la waat ci soxna si dundam dëkkam koddaayam kaaraangeem jàngal ko ay farata léegi kaaraangeem ci la loolu dugg waaye yow la nga la muy jëf jëf mën nga ko bañ a xam mën nga koo xam boo ko xamul sa yow def nga sa kem kàttan wala nga def sa kem nga xam ko te def sa kem kàttan te mën loo koo dindi xam nga dafa am yoo xam ne bu bien si sere maanaam xukuma gouvernement islamique comme ni mu kenn wax ni ñoom la ci def fekkee ne moo am te am yoo xam ne qaadi bi moo koy atte wala muhtasib ñoo koy dogal doo am yow dogal ndax dafa am fooy fooy mën a yem léegi bii moo mën a am yii sharia di mu nangu ñeent ñu maandu ñuy góor di mu kàllaf bokkuñu fu ñu jógee tegandoo di suuf di seen dëkk loolu nag moo fi gën a jafe bu amul lenn benn lenn ci sax mooy rëbboo rëbboo ci jàkka xam nga meloo de la ñuy rëbboo yooyu nga mën waaye yow ci sa bopp sax boo ko ko waxee te amul ñeent ñooñu da ngeen di rëbboo boo nanguwul rëbboo ñu ci ñu ñu ñu door la door yi parce que nangu jaamu gi nag ñàkk a nangu jaamu gi mu ngi doon amee ci loola bu fekkee ndax laa neex nga bàyyi ko te wala ngaa la jàppoon wala nga ngay wut xaalis di ko jaxee
bu ñaareel bi maanaam su fekkee yàlla dafa dogal doom su socce doom jooju te mu ci biir buum ndax doom jooju dagan na mu sant sant ko dagan na
gis nga seet rëbboo amul ñeenti seede yi amul rek doom bi te te te bu mu sëy bi am na doom bi day yéeg ci bàyyi doom bi li koy xëy yéeg ci bàyyi bi ñu rëbboo bu ñu rëbboo doom bi ci lay lay yéeg te doo ci lay yéeg ba daa bu fekkee ne rëbboo amul waaye arbaa shahadaati seede na ko doom bi di yéeg lenn muddat aqsal xam bi dafa am muddat aqsal fekkee ne ci latitude boobu génn na ko yoon yéegal ko ci yow soxna si kenn joxagu leen xarafagu leen li wala xarafagu leen